ci réew mi fitna gi am ci réew mi danañu ko éviter et éviter ko nag moo ko war moom président Macky parce que tey ñi ñi sonn nañu dégg naa suma jeune frère Pape Djibril Fall mu ne politiciens yi dañu bëgg jël nit ñi sonal réew mi mais c'est la réalité c'est une triste réalité j'ai vu ñu ngi koy attaquer comme ni ñu doon def rek parce que Bougane àndul ak ñun xalaat nañ ko attaqué mais dama koy wax ne ko na carapace gën a dëgër adduna gëm-gëm dong moo fi nekk man li ma gëm mooy moom ma Sall ak ñenn ci ñu bari ñi koy xeex ñoom ñëpp ñoo yem parce que ñoom ñëpp ñoo nërmeel Sénégal nit mënul def 40 ci yàq Sénégal nit def 12 ans ci yàq Sénégal ba noppi nga ñëw taxawaat jàkkaarloog askan wi naan leen man maay solution bi au contraire c'est vous les problèmes du Sénégal c'est ça la loolu nag du ñu nangu ñun ñu ñuy nax mën nañoo nax ay paa ak ay mère mais ñun génération bii nga xam ne ñun politique defu dara ci ñun yaakaaruñu dara ci politique lépp lu ñu am suñu ñàkk bii moo ñu ko may yaakaaruñu ne politique mun naa def dara ci ñun lenn dong moo ñu intéressé nu ñu mën a def pour xeex pour Sénégal nu ñu mën a def ba suñu rakk yi nu ñu mën a def ba suñu jarbaat yi suñu doom yi seen ëllëg gën yéen ñii ku ci nekk ci ñu toog fii da ngeen di jël seen alal di jël seen ñàkk seen doole di participer di ànd nag ñun ci lii nga xam ne moom la ñu gëm mu di gëm sa waaw léegi est-ce que war nañu toog di seetaan ñeneen ñëw di ñu nax est-ce que war nañu toog di seetaan ay politiciens war a jël otage Sénégal nous disons non nous disons non cependant du tee nag ñu taxaw di xeex lépp loo xam ne luy yàq démocratie Sénégal il faut qu'on soit très clair bu leen neexee encore ñu taxawaat fële di wax lañ daan wax mais man li ma wax c'est très clair Macky Sall mënuñu ko seetaan muy def lu ko neex ci réew mi c'est pas possible duñu ko seetaan muy def lu ko neex ci réew mi c'est pas possible loolu nag pour ñu yegg ci dafa am synergie bu mu laaj synergie boobu mooy ñi nekk ci opposition bi ku ci nekk xam lan mooy sa doole ñii am nañu trente pour cent ñii am nañu dix pour cent ñii am nañu deux pour cent ñii am nañu un pour cent mais li am solo xam nga mooy lan mooy li wóor mooy Macky Sall quarante pour cent la toll ci dooleem ci réew mi fi mu nekk nii. kon ça veut dire que soixante pour cent yi mu ngi ci ñi des waaw léegi ñi des faaw ñu dawal intelligence. pour mun a boole seeni doole pour ñu xam ne liy defar Sénégal ñoom dañu ci am part de responsabilité part de responsabilité boobu mu ngi commencé ci xeexandoo ak wareef ak yelleef regardez ce qui s'est passé avec Déthié Fall avec Mame Diarra Fam des de la République ñoo xam ne dañoo am immunité parlementaire seen immunité parlementaire ñu bafoué ko tey jii yóbbu leen tribunal war leen a déglu te ku ne xam na ni ci ñun ñi dañu leen di dóor mandat de dépôt ni ñu ko defee ci information yi ma jot ci Ahmed Aïdara c'est fait c'est déjà fait c'est dommage c'est un recul c'est dommage Macky am na way moom Macky Sall moo njëkk a ñetti député ci biir kaso bi ensemble parce que loolu record Guinness la et je suis certain que dinañ ko inscrire ci record yi en matière en tout cas ci agenda politique u àdduna moom Macky moo njëkk a ñetti député ci kaso en même temps muy Cheikh Bara Dolly ku ne xam na ne la mu wax dafa juum mais njaboot boo njabootee da ngay jéggale boo njabootee dangay ngay jéggale boo njabootee da fénatal mais ku ne xam na ne Cheikh Abdou Bara li mu wax xër moo ko ci yóbbu ak wax joo xam ne li ñuy wax làmmiñ bal la wax ja dem na mais moom mi njaboote Sénégal waroon na koo mën a jéggal et day wane grandeur am mais malheureusement plus on avance avec Macky Sall plus mu ñuy démontrer ban façon yi nit la plus mu ñuy wan ne moom day defante plus mu ñuy wan ne moom dafa am péete te péeteem googu faw mu koy assumer di ko assurer c'est dommage Mame Diarra Fam Déthié Fall lan lañ def kii dafa dem di seeti doomam kii taxaw ci buntu permanence am ñu fekk leen fa dajale leen nguufaan leen yóbbu leen démb dem naa section de recherche bu koloma di seeti Déthié Fall ak Mame Diarra Fam mais dañu bañ ne ñu mënu leen ko gis ñu xam ne aussi comme ñoom ñoo yore la violence légale ñu daldi leen bàyyee seen caserne génn it ñun dem suñu yoon lu jëm ci seen incarcération c'est un recul démocratique Ahmed Aïdara idem le maire de Diamaguène Sicap Mbao idem Guy Sagna lan la def dem ngir xool ay naataangoom ndax ñu ngi ci jàmm ñu ne ko yow justement yow lañ doon wut jàpp ne karaj tëj ci biir ma ne ñii nekkatu leen en sécurité parce que bu ëllëgee danañu ñëw ci yéen ne leen li ngeen bind waru leen ko bind wala waru leen koo wax et bu boobaa dinañ leen teg ci mbaam mi ni ñu ko defee ci ñeneen kon c'est le moment de comprendre que war na jot na ñu boole doole yi xeex ak ki nga xam ne moom moo di le président Macky